Euh, ngir fas yéen euh, fas yéene leen a andil euh, événement yi fi xew tey jii xam ngeen ne Cheikh Sidi al Muxtaar al xalifatul am li taifatil muridiya yàlla na sunu boroom guddal aw fanam may ko ak wér may ko kattan dëgëral ko ba li mu yéene liggéeyal Seexul Xadim ci dëkkam bi mu man ko lim yéene liggéeyal mboolem jullit ñi ci àdduna bi ak mboolem àdduna bi yëpp suñ borom dimbali ko ba mu àggale ko xam ngeen ne ci yéene gi nga xam ne nii yéene na ko lu baax julit ñëpp yéene ko tam euh, mboolem àdduna bi euh, tax na ba tey jii euh, ci dëkk bu sell bi di Touba mu digle ñëpp génn ci kër yi ñëw ci jumaa yi ak jàkka yi tuubal sun borom delluwaat ci sun borom delluwaat ci ay ndigalam dellu ci ñaan ko euh, ci ñaane ko ci alquranul karim ñaane ko ci jàng ay xasiida ñaane ko ci istixfaar muy jégglu suñu borom ñaane ko ci mboolem euh, zikrullahi yi nga xam ne nii euh, digle nañ ko ci ku bëgg suñu borom may la dara nga ñaane ko ca ndax li mu yéene àdduna bi mooy jàmm ak xewal te suñu borom dafa wax subhaanahu wa taala ci téeréem bu sedd bi ne eh, bu téeréem bu tedd bi ne ud'uuni astajib lakum yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne addu'a u muxul ibada addu'a u muxul mooy eh, ñaan mooy yuurug jaamu yàlla su fekkee jaamu yàlla nit la yuur gi nga xam ne mooy commandé mboolem cër yi mooy ñaan te sunu borom wax ci alquran ne istaghfiru rabbakum innahu kaana yursili sama aleykum midraaran wa yumditkum bi amwaalin wa baniin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaaran loolu tax sëriñ bi digle ñëpp génn euh, ñu jàng alquran jàng xasiida sikrullahi euh, salawaatu ala nabi istixfar ngir sunu borom mën a dotti jàmm ci àdduna bi waaye tam dotti ay xéewal ci adduna bi incha allah ni ngeen ko gisee nit ñi ñu ngi ñëw jóge fu ne jumaa ju mag ji daanaka euh, fees na nii muy feese itam ni la mbooleem jumaa yi ak jàkka yi ci dëkk bi di feese ñi nga xam ne itam amuñu kàttanu ñëw wala sax donte am nañ ko ñuy togg ay ay xéewal di indi ak yi ñuy naan ak yëpp yoo xam ne ni doomu adama dana ko soxla ci barab bi loolu nit ñi gis ngeen ñi ngi ñëpp nag mobilisé wu nañ euh, taxawe ci ni nga xam ne nii noonu la ko sëriñ bi digle kon ñu toppal leen événement yi nga xam ne nii moo fi xew insha allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamina wasalaamu aleykum wa rahmatullah wa barakatuh وعجات وجهي من تكريم بانا عزار مولد من بار ربنا لله سوريا في سهري ربيعنا على ابتداء ليسي ندار خلق فعذابنا له خير ممن لا شريك له في الملك والحمد إهلانا فعذابنا خير ممن لا شريك له في الملك والحمد إهلانا mane magara mana yu bari yu bari ni wallahu mawlana kamen gale ya bi dal ya magau ziyatan ada obe والأحزاب للعبايات ودي إدمان خير وإيحاد وإن كان ربيتني بدائل عام وترويات عن يوم ترويات الجود ساديات معقدني بدلي فانزودني ولالا مواسم بدما فله دنيانا نجيتك اليوم يا من امسك رماني وزودني يوم jëf yéen mbokk yi nga xam ne kon yéen a ngi ñu doon topp ci Al Azhar Touba euh, loolu moo nekkoon événement bi nga xam ne nii moo xewoon tey fii muy njàngum alquran njàngum xasida zikrullahi salawaatu ala nabi istighfaraat ak jaamu yàlla gu gu nit mën a xam rek ci euh, ci ci lislaam moom la nekkee woon fii boole ceeg jaamu yàlla yi nga xam ne ni ay togg ñam la ak joxe ndox joxe boisson ak lépp loo xam ne nii doomu aadama dina ko soxla ci barab bi euh, muy lu ama am solo kon ñi ngi ñaan suñu borom lépp loo xam ne nii ñaan nañ ko fi suñu borom nangu ko ba dotti ay xéewal ci àdduna bi yëpp dotti jàmmit ci àdduna bi yëpp ba àdduna bépp bokk juboo incha allahu euh, di sant bu baax suñu caméraman euh, sëñ Thierno Faye mi nga xam ne nii moo nekkoon ci terrain bi di leen dig daje ba beneen yoon incha allahu wa axiru daawaana rahmatuhu wa barakaatu.